mu ngi noonu booy Kaasa ngi noonu mbooloo maa ngi noonu ndaysaan am na seen ko indi sotti Samba Xayaan bi nee na ma jarbaatam la ndaysaan wala moom papaam mooy nijaayam waaye loolu yëpp benn la kookoy caatu Kaasa wala booy Kaasa ndaysaan Rambo ngi noonu waaye xoolal ma lii la ilaha waaye xale yi am nañ mbooloo bëre waaw waaw ndeysaan kaay leen laale waaw may lañu Sitor laaj na ay sixième laaj na mba arbitre bi sifflé na lundi 24 mai 2021 arène nationale Mouniang production dox ci diggante Rambo ak Boy Kaza Boy Kaza cokkas na Boy Kaza moom ngeen jàkkaar lool moo takk bande bu weex bi ci bopp bi Rambo ba la woon ginnaaw moo ngeen moo ko su tent bopp bi ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ñu ngi déplacé wu di demee wet ndeysaan ñoom ñaar a ngi demee wet Boy Kaza na boobu dal na Boy Kaza dóor boobu na Rambo ngi dox ci kawam Boy daa jël décidé daa décidé pour xeexaw Rambo dóor na ko Boy na Rambo jàpp na ko. jàpp la bëgg Boy Casa Rambo Boy Casa ngi dugg nu ko neexee di génn nu ko neexee Rambo fermé sa garde boo xamee dóor mu daanu dina am Rambo Boy Casa Rambo tànk ndijoor Boy Casa tànk càmmoñ ñoom ñaar tànk yi jegante nañ kuy jëli tànk moroomam ci kan lay doon Rambo mooy jëli tànk wala Boy Kaasa mooy jëli tànk ñu ngi noonu ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan Boy Kaasa ak Rambo ñu ngi lewaatoo Rambo loxo yi jot na Boy Kaasa dóoraat na day ba Rambo wàccee garde bi mu dóor ci koom Rambo fayagul ba léegi ba léegi fayagul dinañ jàppante dóoraat na Boy Kaasa dóoraat na Boy Kaasa Rambo Rambo dóor na Rambo dóor na Rambo dóor na Boy Casa fay na ña xeex lu ma kaawo lu ma la waxoon ma ngay Rambo dóor na Casa fay na Rambo dóor na ñu ngi korante plaqué bañ na dóor na ko bañ na mu ngi attaqué Boy Casa attaqué na ko la ilaha illallah kaawo dina waaw waaw la ilaha illallah ña ngay xeex dóor ndeysaan Boy Casa ngay dóor Rambo fay na dañuy taxaw ku ne jël na ku dañuy taxaw waaye namb nañ lii xeex bu sax dóor mu daanu dina am Boy Gaza Rambo jëli na sol na ko Boy daw na jëli dafa sonn Boy Gaza ak Rambo ndeysaan ñu ngi jàppante ñoom ñaar <laughs> ay lamba gi làmb ngi ñoom ñaar lii mooy làmb bu dee xeex la xale yi joxe nañ ko ñoom ñaar weccante nañ kurpañ arbi bi day àtte kuy dem ardo wala am na protestant signe de fatigue protestant booy Kaasa yàbbi na protestant bi booy Kaasa yàbbi na protestant bi da ngay jël avertissement. armi bi sifle waat na ndaysaan booy Kaasa dem na ardo bu ñëwaat diggante moom Rambo Rambo moo leen féete càmmoñ Boy Casa féete leen joor ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ba tey dara xeegul waat waaye dana neexaat ndax xale yi danañ xeexaat xale yi danañ bërewaat <laughs> waaw mu jëm neexaat waaw ndeysaan ndeysaan Boy Casa ak Rambo ñu ngi noonu Boy Casa cokkaas na Boy Casa munoo jiital pied droite munoo jiital pied gauche di sànni droite dafay sore door nañ ko daaw na jàppante jàppante na ñoom ñaar Boy Casa Rambo ñoom ñaar ku ci nekk fi nga jàpp baaxagul ma xeex Boy Casa Rambo ndeysaan ñu ngi noonu door nañ pekkut jël na benn moom Rambo di yomb ñoom ñaar wicci ko mu bañ wi ñu bëgg ñoom ñaar Rambo Boy Casa doon day percuté ci suuf coup bi na KO KO wala déet eh Rambo bi jàmbaar la mais Rambo mu ngi recevoir ay coups yu métti ah. Ndeysaan moo lay wan ni bëre jàmbaaru koy def <laughs> wallaay Matar lamba gi Ndeysaan ñoom ñaare gi ci ba tey arbitre day atte waaw waaw bàyyante leen waaw waaw demal ardo demal leen wéy lii lamb supporter bi jóg na ñii jóg nañ lamb gi <laughs> ba waxoon sedd na <laughs> waaw Modou Anta lii laa bëgg. doorante ba yaa soxor. xol sedd. jili yaa soxor. ay millions lañ leen fay. raak ba dem Anta nga ne sa xol sedd yaa soxor. waaw waaw. ndeysaan. Ndeye Mbacke xanaa sa xol sedd na. lii dafa neex xale yaa ngi bëri ñu ngi xeex bay jili. Anta deret ji bëri na. kañ dem la ko wax demal ma dem. ndeysaan. jigéen la bu njëkk bu gisee deret day jooy. waaye yow mi soo gisee deret sa xol day sedd. sama xol day seet nga xam ne bi neex na lii mooy làmb na am bëre am xeex. ndeysaan làmb ngoog. ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Sitor. Ndour mooy arbitre bi moo sifflé. dox ci diggante Boy Kaasa. ak Rambo ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ba tey. ndeysaan waaye kenn du laat Diop. <laughs> ay waay jox leen ko géej waay mooy njëriñ ci jeunesse bi. ñu lay xeex jàppante lañu ndaysaan booy Kaasa ak Rambo ñoom ñaar jàppante nañ dara xewagul Lat Diop moo gën ci jeunesse bi moo gën ci Parcelles Assainies moo gën ci Guédiawaye moo gën ci Golf Sud ndaysaan laat sëñ Abdoulaye Mbacke lañ la duppee gaynde yoon bi <laughs> ñu ngi noonu ñoom ñaar ma ngay door bëggu xam nañ ko ci Lat Diop bëgg sa réew xam nañ ko ci Lat Diop bëgg a jàppale jeunesse su réewam xam nañ ko ci moom Lat Diop ndeysaan mu ngi noonu Papa Ndiaga waxal Lat Diop Sénégal bëgg nañu ko de waaye première tranche 1 ba 6 mësuñu koo fàtte ña ngay xeex uppercut bi jolli na ñoom ñaar du yomb combat bi mbaa dina jeex Rambo ma ngay xeex ay oh, waay gàllankoor ngay dagg waay daw booy kaasa jëli na ko caxabal da koy Rambo daan booy kaasa combat bi metti na ndeysaan combat bi metti na ñoom ñaar joxe nañ ba sonn ñaari xale yi ndeysaan Boy Casa ndeysaan il n'a pas démérité moom Boy Casa joxe na la joxe ñaari ndabay dugg waaye benn ay